mutuelle de santé wàllu wér gu moo tax mu jóg maanaam dimbali agent état bi moo taxoon mu jóg maanaam agent état bi ak seen ak seen i seen i njaboot parce que dañ ne nit moom wér ak wérle moo am solo waaye soo wéree te wérloo di sotti donc ñun ak suñu njaboot ñun ñëpp alors mutuelle bi loolu taxoon mu jóg waaye dañoo gis ne mu euh, loolu tamit euh, xëy na ci wàllu garab am na solo mais su fekkee ne mën nañu def leneen la nga xam ne xëy na mën nañ may nit ñi wér-gu-yaram doon wàllu garab ñu ne nañ ci jublu conseillers yi techniciens yi ñëpp ñu xamoon ñu ne li mel ni dox ba nga ñaq dafa baax ci li nga xam ne day joxe wér gu yaram muy randonnée pédestre bi ñu doon def nii. alors moo taxoon ñu organiser ko ah ci loolu nag balaa may sori dinaa remercier vraiment autorités yi nga xam ne ñoo tax ñu mën koo def lu mel ni préfet bu bi xam ne vraiment moom newoon na sax ci la bokk parce que moom mutualiste la euh, commissaire bu Mbacké ak agent bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa Croix-Rouge aussi gis leen ñoom ñëpp ñu ngi woon ñoom ñoom euh, euh, animateurs yi dégg ngeen euh, nu tuddi ndongo dégg ngeen ko moo ci tout au long du du du trajet mu ak gungeeñu di expliquer lan mooy mutuelle ak ñëpp ñi nga xam ne daal vraiment jàpp nañ ci. comme ni ñu ko defee ren nag buggu nañu seet bi xam nan lañu ñu mën a def bi ñu mën ko defar waaw loolu nag moom conseil inspecteur bi mu ngi si. ak jàppale xëy na suñu bureau national bi tamit parce que comme ni ngeen ko gisee vraiment yi nga gis ngeen ñëw ñëpp sol ay yére ay ay casquette euh, ndox maa ngi nii am pagaay yeneen yi si war yëpp am na ci loolu moom Babacar Ngom mi nga xam ne mooy suñu président national yaakaar naa mu ak équipe ñoo ñoo ci jàppale mais fii ci département bi dafa am ñoo xam ne il faut mu gërëm leen sant leen parce que liggéey bi ñoom ñoo ko def muy Kassé mi nga xam ne moo nekk si wàllu Mamadou Kassé moom mooy secrétaire général du département département bi mooy assurer permanence bi tamit muy doon lu métti nga xam ne vraiment nit ñi dañ koy liggéeyloo guddi bëccëg suba ngoon amul samedi amul dimanche kooku ñu maa ngi ko ci gërëm di ko sant bu baax a baax. xam ne nii vraiment am nañ une trentaine jëm activité sportive dañ ko war di mooy tàggat suñu yaram amul jigéen amul boo gisee fii ñu ne Touba taux bi moo gën a yokk ci feebar ñun jigéen ñi boo amee vingt ans rek wala nga dugg néegu sëy rek foog nga ne waroo too sol. lu nga xamee ne nii lu mel ni comme li ma sol nii rek war a dox si mbedd yi dañu foog waru la fekk loolu du dara esprit dëkk bi la rek mais une fois rek nga fexe ba génn ci loo bu ñu lay dugal rek di nga am chance pour au moins nga mën a rëcc ndax li ngay def li ngay santi sa yaram yow rek yaa koy santi des fois damay wax inspecteur salle bi jarul neexal kenn ku ñëw benn yoon gis li ngay sentir yow yaa koy dund ci sa biir yaram kenn du la ko nettali wér gi ngay am confort bi ngay am aise bi ngay nekk mun naa mën a ko yow rek yaa koy nekk kon ku ñëw benn yoon ku ñëwagul daal moo ma jaaxal mais ku xas bu ñëw dootuma la neexal pour nga ñëw ndax lañ fay yoon ñun ñoo koy yëg jigéeni Mbàkke yi ma leen wax liggéey am na solo ndax ci li ñuy suuturul waaye itam boo wérul doo mën a liggéey te wér gi yaram li koy joxe dëgg la am na ñoo xam dañuy fajoru de marché mais guddi gi mi fi ngeen def marché au moins 30 minutes doxantu la rek ba mu ma 30 minutes nga ñëw xëppoo sa ndox tëdd rawatina boo reeree ba pare reer tëdd moom moo yées kon ñuy moytuloo ndax boo jëmee au moins dugg trentaine jàpp ay cinquantaine yooyu feebar da lay yomb ndax yàlla mayewul day appelé lim la may da koy rocci par ndànk-ndànk muy gis bi muy kàttan bi muy yaram bi muy tànk yi te temps yëpp dañuy jàmb tànk yu métti waaw kon nag nañu sóoraale kat yi fii dafa tàng lekk tëdd baaxu fi graisse bi mooy ñëw solu si sa yaram tension yab la jabet yab la lépp yab la kon nañu góorlu bu baax lu ñu am activité lucrative mooy lu ñu jënd ak lu ñuy jaay wut lu ñu wut wut alal dañ sóoraale suñu wérgu yaram wérgu yaram dama dëkk ak benn maire bu naan ma maire ñang ñoo dëkk sama yaay ju baax mu ne comme la bu borom yëgut wérgu yaram comme la bu borom yëgut yow foog nga ne boo boo xëyee rek nanga war nga dem mais boo mënul boo wérul doo jóg kon déjà comme bi njëkk si doomu aadama moo yor gi yaram may woo jigéen ñi nañu góorgóorlu ci dox bi ci marché bi ku mënul nii ñuy def tam di dox randonnée ndax say activité du la ko permettre boo réeree guddi bala ngaa tëdd nga dox 30 minutes nga ñëw doog a tëdd loolu moom tamit ci la bokk bu ko defee loolu am na ñoo xam ne xëy na nit ñi def ñoom sañu ñu ko wala seen am nañ complexe bi ndax milieu bi la bu doon Dakar tey jii ku ma ëpp day sol pantalon romb la fi jaagat jaagat dox dem plage kenn du ko faale mais tey su ma romboon ci diggu dëkk bi ñëpp am lu ñuy wax mais nag da ngay am esprit de dépassement te xëy na ku jàng mooy xam esprit de dépassement mais ku jàngul tamit na xam ne kenn ku ci nekk na nga def li nga xam ne moom nga sentir doomu aadama nga bu la kenn ci ay diw romb na fi diw romb na rek da ngaa war a jóg def lii am ci fulla ak fayda ak pasteef di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf tey ngeen ñëw fekk si fi ñi nga xam ne ñooy waa mutuelle de santé des agents de l'État ñu ànd ak ñi nga xam ne ñooy comité départemental de la randonnée ànd ak toutes les forces vives bu département bu Mbacké pour lan pour saytu suñu wér-gu-yaram parce que dama ne ñoom waa MSA euh, MSAE euh, ñoo gën a jekk ci organiser journée bu mel nii ndaxte dama ne ñoom ñooy capitaliser ordonnance yëpp bés bu nekk tey jii boo leen cuqoon ñu wax la ñaata kayitu ordonnance la ñuy jot par jour mais ma kon ñoom li ñu yëg ñoom ñoo ko xam moo tax ñu leen ñu leen di jaajëfal ma joxoon leen benn pari ne leen lii bu dakkul journée bii ngeen def di journée randonnée pédestre su dakkul kayit yooyu yee ngeen di jot bés bu ne dana wàññeeku incha allah taala waaw donc ma doon wax ne doon leen fàttali ne nee leen daaw ca 2021 Touba moo abrité woon la journée nationale de l'hypertension Touba la ñu choisiroon pour defee ko fa ndax lu tax bés boobu docteur Maguette Diop ñu ngi koy nuyu au passage moom moo waxoon ne actuellement département de Mbacké sur les 46 départements yi nekk Sénégal département de Mbacké ñoo nekk ci kanam ci wàllu hypertension artérielle loolu nag dara waralu ko lu dul ñàkk a tàggatu ñàkk a tàggat yaram ak lekk rek yaakaar naa la coordonnatrice Euh, départemental de la de la randonnée soxna madame Cissé Momi Diop wax na ko léegi nee na léegi xaru bi gën a gaaw rek mooy lekk tëdd lekk tëdd daal léegi gis nañ ne mooy xaru bi gën a gaaw dégg ngeen ko wax na fi hypertension wax na fi jabet wax na fi cancer wax na fi ay méttitu tànk wax na fi ay graisse wax na fi hyper euh, euh, surpoids wax na fi obésité te tey gis nañ ne feebar yooyu ñoo sonal askan wi fii nag département bi. souvent dañuy jaawale ñaar foofu laay terminer Papa dañuy jaawale sport ak tàggat yaram sport ak tàggat yaram bokkul sport mooy jongante toujours dama koy wax li ñoom Sadio maane di def loolu mooy sport ñun sport ñu dañu tàggat suñu yaram sport li ko tax a jóg mooy koppar mooy tur mooy ñu xam sa dëkk nga am raaya yiw génn ci télé bi am koppar loolu mooy sport mais tàggat yaram nag li ko tax a jóg du dara lu dul wér-gi-yaram te yaakaar naa ne nag wér yaram mooy koom nag bi gën a rëy nag macha allah.